Maintenant, qu'est-ce que je suis allé faire chez Ousmane Sonko Le 27. Le 26, dogu acte président de la République, mu ma timis ma jiite ko gée ñu nous, timis ji ci li nga biral ayatul kursi yu nga tari ak Quraysh ma firil ko ñaar yépp ne ko lii lay signifier mais bi muy songu ayatul kursi yu bi yokku naa sama teewlu ndax daf ma daloon ca Ablaye Wade ja bi ma ko teeroo mu jógee foofu ñëw permanence rek songu ayatul kursi yu man yàlla na egg de sinon dinañ am problème mu tàmbali alaaw la alaaw la man yaa ah, wóorul de mais Macky bosam dafa leer nañ mané ko quraish bi nga ñaareele ci la sa lettre de mission nek fal yaabudu rabba haza al bayt alladi atamahum min ju' wa amanahum min khawf suñu borom mi ñu sak dafa warlo ak ñun ñaari devoir nous nourrir contre la faim et nous rassurer contre la crainte ma ne ko mooy sa lettre de mission Moy lettre mission pour chef de famille ñaar la yàlla euh, lonk ci sa ndodd ñi nga yilif ya len wara a dundal ba duñu xif ya len wara ar ba duñu ñu jàq ko te fi ñu tok di reer reeru buur bu neex bi am na ñu reerul am na ñu dul ndékki suba am na ñu dul ay te réew mi jàq nañu ndax ñépp jàpp nañ ni le 30 bu Ousmane Sonko dee wuy ji tribunal réew mi dana takk ma ne ko am naa ci xalaat mais du ma la wax xalaat dama koy jëfe ba pare bu doxee alhamdulillah bu doxul ya mom sa décret bi ngay signé nga da xam mais da ngay nangou ma doxal te duma la wax limay may doxal lan mu ne ma d'accord woluna waxante ak mom sen yon newu ci wante dal la ci juddo ci yiw pour senegal ak yeen ni ba ngeen xey 3 avril marche amul ñu défilé défilé bu neex président de la république invité opposition bi ñu gàntal ndax seen mbokk yi nekkoon ci kasso bi li jur loola ca fajar googa la judd